asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar ni ngeen ko xamee nag Equivox TV ak Babacar xam nga ak làmb moom du mën a ñàkk lu mu ruqe-ruqe ak lu mu sori sori rek danañ taal suñu oto wala ñu dox ak suñu ay tànk dem fa gis ngeen fi ñu dugg yaakaar naa tey moom ruq bi ñu dugg sax man fii mam bu may ñibbi fan lay jaar ba dellu loolu mooy son problème ki fi fekk si nag defe naa ne kenn du ko présenté le grand champion ki nga xam ne dégg na roi des arènes ñaari yoon di Serigne Dia Bombardier gi dëkk fi nga xam ne moom mooy ci Mbour Petite Côte bi yàlla dogal nag fan yii ah ñu gis ka ni combat boo xam ne nii am na ko mu war a dox ci digganteem ak benn doomu polonais bu ñuy wax xaw ma Podolski xaw ma nag man daal tur ba sax na mu ruqee moo doy waar xay na mu dina ko xam ñun nag bi loolu amee bàyyiwuñu mu seet ñu ñëw seet si ko laaj ko komba boobu kañ la ko signé nu mu ko signé kañ la koy jongante parce que wax ji bëri na ci mbër ñu ngi lay nuyu di la Euh, Babacar maa ngi lay fay di la ziar bu baax di la dalal jàmm fii si Petite Côte di nuyu sa équipe bi nga àndal di leen ziar bu baax euh, di la wax di kontaan naa nag pour dalal euh, sama sama sama gox muy Petite Côte comme ni ñu ko waxee rek tey ñu war a waxtaan si lu bëree bëri que muy MMA bi donc fi nga duggee rek foofu laa lay tonto ginnaaw bi ma nuyoo Sénégal yëpp à travers Equivox. donc maa leen di ziar bu baax di leen wax ni euh, comme ni ko Babacar waxee rek xam naa dinañ gën a développé mais combat événement boobu muy wax noonu am na dinañ ci ñëw waaw léegi dama man kay balaa ñuy yëg ñëw foofu sax mm-hmm. damay nuyu ñi ñuy seetaan mais tamit am na ko xam ne faw mu nuyu ko sëriñ mm-hmm. ndax olof ne na feccum nit su neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya mm-hmm. ñu koy wax Aliou Sall nekk ca marché marché caaro yi di jaaykatu yére bi may ñëw nii ne ko damay seeti Bombardier tey moo a woo ma ñëw moom solal ma lii ma sol yëpp moo ma ko jox macha li ma sol rafet na ah. Aliou Aliou kon li nga defal euh, Babacar rafet na defal ko ñun ñëpp Aliou Sob waaw taalibi sëñ Babacar si ma koy nuyu di doomu Bawol dëkk fële ca Mbombo yi ma koy nuyu di nuyu waa Mbombo yëpp nekk marché Thiaroye di nuyu magam Ngom Sall mais sëriñ man tamit ginnaaw bi ma yegsee fi nga ma dugal nii fan la parce que dama am balaa may dem ci MMA dama am seetlu bu ma def fan yi mbëri ak ay kër yoo xam ne comme ay hôtel gis nañ Eumeu seen gis nañ Balla la Modou Lo tey mm. fi ñu la fekk nii fii gi kër day xanaa yàggoo ko sant laa waaw yëpp si mbuur la xam nga comme si dëkk bi dëkk <laughs> euh, waaw fii daal yëpp si biir mbuur la mais comme sànq bi ngay soog a daal. waaw nee nga dañ ko codé. waaw fii moom waaw kon kon kon dañ ko codé rek. ñu codé ko rek dañ ko codé waaw. ah fii de macha allah fii de moom xam naa moom <laughs> ah code la de Gomis ah. non fii kenn bu bëgg nga am fi terrain sax. non fii ah, ah déedéet loolu moom loolu moom vraiment bëgg naa ko. ah loolu de boo ko waxee dina am. incha allah ndax yow moom yaakaar naa ne mbuur moom. Mhm. tey eh, ñoom dem si yàlla ñoom Caroline Faye. Mhm. ñoom Demba joom ñooñu nga xam ne doomi mbuur yu wane seen bopp ci mbuur lañu. Mhm. defe naa yow tamit wax dëgg yàlla mujj woo puso ba mu réer loolu la yàlla dogal. mais ginnaaw bi ma la nuyuwaatee eh, di la laaj tey. MMA bi. combat bi nga xam ne ni moom nga si signé mhm. balaa ma ciy dugg dugg cent pour cent sax damay ñëw ak yow MMA bi Bombardier ak MMA parce que dañ ne MMA Sénégal rek ñëpp ne Bombardier Bombardier lu la mhm. booleeg MMA waaw Babacar xam nga man comme ni ma ko doon waxee rek euh, man dama bëgg am marqué sama empreinte même su ma demee tey bu bàyyi dafa ba daan boo seetoo sama interview yu njëkk daan naa ko wax damay wax ni mhm. damay bëgg lu bëri ñu ne si man la benn mbër bi nga xam mooy jógee Mbour dem bëri ci Dakar guddi guddi ñibbi si fi mu dëkk man maay mbër bi njëkk a formé écurie ah Petite Côte fi mu dëkk dem di bëre ji dakaar man maay mbër bi njëkk a dem bëre ji bëre dóor euh, France muy Bercy man maay mbëru Sénégal bi njëkk a dem Turquie dafa bëre bëre diwlin man maay mbër bi njëkk a def combat MMA loolu la yàlla dogal MMA nag li ma si dugal yomb na mooy euh, sport de combat boo dama ko bëgg yàggoon ko seetaan yàgg na trop. mais amu woon connaissance bi amu woon possibilité yi pour xam pour dugg si système bi. donc comme nag damay voyager lu bëri. may voyager di voyager di voyager ba xamanteek benn euh, entraîneur bu mag bu nekk France muy Luc Estienne maa ngi koy nuyu au passage moom benn club bu fa nekk ma commencé di entraîner ak ñoom su suma sama combat yi mujj yëpp su may entraîner maag club bi ñooy entraîner ensemble. Mm. donc voilà si laa nag commencé xam nga boo ko bëggee da koy gëstu. bien sûr gëstu combattant yi. xool samay catégorie di xool ñen ñoo nekk instant au top fan la combat am ñen ñoo fi nekk ñen ñooy organiser yu mel noonu donc boo dugg système bi nag commencé am si connaissance mais sama première combat maa ngi ko def euh, Suisse ak Rocky Balboa ñu koy nuyu au passage parce que tamit euh, mhm. sénégalais boo xam mu ngi mu ngi Suisse mais tey bu ñuy wax tey MMA tey man ak moom ñoo ko njëkk a en tant que sénégalais waaw tey ko def beneen tubaab man ma jóg ma def ak beneen tubaab mais man ko initié kon moom vraiment euh, c'est à moom ñu ngi koy waaw féliciter bu baax a baax sama adversaire mais nag vraiment def na si jéego bu rëy parce que tey bi ñu def suñu combat suisse boobu si la ñu bëri sénégalais yi doon wax lan mooy MMA lan la lan la lan la lan la lan la dafa violent dafa kii mais bi ñu ko xoolee xam nañ ni lii c'est intéressant donc ba tey sénégalais yi bëri bëgg nañ MMA noonu la ma duggee nag may entraîner ak club bi di entraîner ak moom di entraîner ba mujjantal yi affaire bi xam nga ma ne léegi pourquoi pas ma ma pratiquer ko. ok si laa nag commencé di def ay démarches xam nga ak connaissance yi ma donc ba yàlla def ma décroché combat bi Suisse def ko looy dem nag di gën a dem rek dañ ci gën a am connaissance. ba actuellement nii vraiment mu am si connaissance yu yaato yaatu yoo xamante ni. combat MMA moom man maay wax nii damay jël temps bi ak arrangé na ma wala arrangé wu ma. mais vraiment j'ai beaucoup de contacts beaucoup de relations yoo xamante ni à tout moment su ma amul combat Sénégal rek mën naa jël combat MMA. mën nga jël combat MMA. am na solo loolu ko ñaanal jàmm moom tamit parce que loolu nga wax tamit am na solo trop. Mm-hmm. moom bokk na ci tamit ñi nga xam ne tax nañ MMA bi ñu xam ko fii Sénégal. Mm-hmm. tey bu ñu jógee ci sa combat ak Rocky ñu gis MMA ñu organiser ko Sénégal. Mm-hmm. jukkoon nañ fi sax déclarer sa combat combat ba yàqu ñu dem ba benn moment mais terewul ay organisateurs ñëw nañu organiser fi MMA ñooñu fi ñëwoon organiser fi mooy bi rëg-rëg jongante woon ñooñu da am ak ñoom ay contact est-ce que dañ la contacté woon bi ñuy organiser fii danga nga woon a combattre combattre wala la moo tax combat ba bokkoo ci woon waaw xam dafa loo xamante ni euh, mën naa ko wax ak ñëpp mais mën naa ko wax nit ki mooy tey Lopez bi nga xamante ni mooy yoroon organisation bi woon Sénégal 14 décembre man la njëkk xamanteel comme sénégalais combat yooyu fa jaar yëpp si sa man la jaar. Hmm. donc junj nag dafa doy borom xel am na yoo xam te ni bëggatuma di si nekk di wax di wax di waxaat. mooy que combat ñu fa def. yi ñu fa lépp sama loxo la jaar. donc Lopez boobu man la njëkk a wax ma maa ko defal ay proposition fa def combat yi. yi fa jot a joŋante. waaw si presse laa nekk di wax. li may wax lu leer nañ la wax kenn du ko dindi. combat Farba de bokk na ci rëg-rëg moom. waaw man maa woon na bëre combat bi mais li taxoon ma ma bañ jël combat bi samay samay samay affaire personnelle la. parce loolu dafa gën a foor combat te defe naa am na lu ñu ci jot a wax tuuti loo xamante ni neexu la wax si si presse. si caméra voilà donc man maa bañ a jël combat boobu. ma ni ko na naa jërër def ko sénégalais yi mën nga woo tax parce que tey loolu passé na mais terewul nga mën a wax sénégalais yi moo tax carrément bés boobu yow woo ci. waaw bés boobu yomb na pour ma pour ma expliquer si mais dafa xaw a si man. parce que diis na moom bi ñu tax ki xamul xam rek. waaw bi ñu négocier sama combat. Mhm. donc man maa wax Lopez ma ne ko na si def ay mburu sénégalais. ma proposé leen euh, rëg-rëg proposé leen Boy Bawal. ok donc mu ne ma ñett ñi dañuy bëri bàyyi ma jël ñaar mu ne ma yow laay jël ak rëg-rëg. donc mais xam nga euh, ku nekk xam na ni bi ñuy def bi ñuy def combat bi. Hmm. dafa sama grand bi Pape Dia. Euh, tëdd feebar. temps yii entraîné tu ma woon ma jël sama sama énergie yëpp. def ko hmm. si xam nga di di ànd ak moom jóg xam nga daanoo. Hmm. ba def ñu dem France. jour bi muy annoncé ne ma. Euh, day décédé avant décembre moment boobu maa ngi si plein négociation combat mais mënu ma wax promoteur bi ne ko lii day xew wala lii day am loolu mënul ànd ak def combat. waaw loolu moo tax ma loolu moo tax moo tax ma génn si combat bi waaw. ok waaw mais kon organisation boobu loolu moo la ci tere bokk ci bëre boobu bés boobu. Mhm. wala ci MMA boobu. Mhm. léegi bi ñu fa jógee defe naa gis nañ nag bañ fa jour boobu sax laay wax affaire ba na mu amee coow Sénégal. ak ku mel ni rëg ba mu ca bokkee combattre ca la mu ca jot a def mhm. xale yooyu ci dugg muy rëg-rëg booy boo bawol tudd nga ko ak ñeneen ñoo xam ne nii yow ñoom ñooñu ñoo la ñoo la laaj xale yooyu wala yow yaa leen proposé xale yooyu pour ñu bokk ci affaire waaw man maa leen xale yooyu man maa leen proposé parce que ku si nekk mooy li ma wax rek man si wax te lu may euh, dafay leer mhm. xale yooyu ñoom ñoo ma contacté ne ma dañ bëgg def MMA comme amuñu contact yi amuñu connaissance bi ma dem def man maa leen man maa leen présenté promoteur yi man maa wax ne leen jël leen diw ak diw parce que actuellement ñu ngi au donc voilà ba yàlla du tey li muy def mais li ma ciy wax rek mooy que man euh, actuellement nekkuma ci MMA pour pour concurrence ak sénégalais ok man dama nekk dama dugg ci MMA pour mission. mission boo war a def waaw ñaar lay bokkul. muy ban ak concurrence ak mission duñu benn. ok man mission bi ma am tey mooy ñëw ubbi bunt bi. Mhm. ba xale yëpp am accès. ndax ñoo ma gën a dese carrière bu gudd. man tey sport génn ci surtout surtout làmb sax yooyu génn ci mu la gën a jege ko duggaat. kon ñoo ma gën a dese carrière nag mooy damay ubbi bunt bi. Mhm. ba ñu am accès ba ñoom ñoom ñu xam na mooy MMA ba ñu am contact yi. Mhm. man su boobaa su ma retiré sax def leneen fu ma tëdd damay nelaw parce que dinañ xam ni. Mhm. kii de vraiment bi mu siy toll ubbi na tey porte yi ba xale yëpp tey. am nañ si avantage ba tey lu si waay manti lekk si àdduna bi yéene naa la ko. am na solo waaw léegi bu ñëwee ci xale yooyu ba tey dañ ciy des ku mel ni Siteu jongante na fi rëg-rëg jongante na fi premier deuxième combat gagné na ko. Mhm. rëg-rëg combat bi lu bëri ci dëkk bi temps yi mhm. que adversaire ko ragaloon ak yu mel noonu. Mhm. rëg-rëg combat boobu bi mu ci jëmee est ce que yow en tant que grand frère am daan ngeen ci waxtaan wala daan nga ko ci xelal digganteem ak ki nga xam ne moom mooy Alain Ngalani. waaw xam nga Euh, wax naa la ko léegi si biir wax xam nga man euh, nit ki nit ki fi nga ma yem rek des fois foofu laa lay yem. ni nga ma téye tamit noon laa lay téye sama rakk la sama sama sama xarit la Siteu sama rakk la sama xarit la man aw ma si ak kenn xaar ma yàlla te du ma ko sama kenn nag euh, doon nañ ci waxtaan vraiment ma wax ko ma ci xam ma wax ko ma ci xalaat sama li ma yàlla dénk ko si néew wax naa ko ko parce que dama ni man sénégalais. ginaaru Sénégal sax bu doon xeex ak gaynde beneen dëkk man ginaaru Sénégal gi lay faral noonu laa mel. que muy rëg-rëg que muy sita que muy yeneen boo yi bëgg def MMA. képp ku si combattre feneen. Mm-hmm. du si wax ak nit nag lu jëm si làmb dafay leer. parce que xam nga dafa sensible tey si euh, rëg-rëg. Mm-hmm. guy gi muy bëreel guy gi sama goro la. guy gi guy sama goro la. Mm. tey su ma duggee moom si làmb. Mm-hmm. dafay dafay dafay dafay sensible. guy gi su ma duggee ak moom si làmb dafay sensible ma siy wax ak. yow si wax MMA lay wax ak yow. du ma dugg yow si mbiru làmb. parce que làmb dafa xaw a dafa xaw a doy waar. Hmm. moo tax ku si nekk rek dafa am branche boo xam ni. fa laay waxtaan ak yow foofu laay yem. waaw kon daal ci MMA rek nga wax ak rek laay waxtaan ak ñoom. mais boobu xamoon nga ko Ngalani boobu. mais kooku yaa yaa cinq ans doxoon nañ suñu komba ok xamoon naa ko bu baax a baax a baax a baax. Hmm. xamoon naa ko bu baax sax. kon tiitoo kon ci. Euh, non. wax naa ko muy dégg nee naa ko peut ñi nga xamante ni xamuñu combattant MMA yi mën nañ tiit mais man mi ko xam dëgg dëgg dëgg naa ni a quatre-vingt-dix pour cent am nga chance pour gagner ko. pour ko waaw. léegi euh, bi mu ci bi bi yàlla dogalee mu jongante ko ba gañe ko ñun ci suñu micro ak suñu gëstu dem nañ wër ñi yëngatu ci MMA bi ba dajee ku ñu wax Pape Demba Kane ñu ne moom moo jiite MMA Sénégal mhm. bi ñu ko laajee ci sa niveau niveau Rocky Balboa bu Bomba bu euh, Sita ak yooyu mu xamal ñu ne rëg actuellement yéen moo leen ëpple niveau te itam am na 1000 sens fi nekk nii pour dugg li ñuy wax UFC pour jongante fa te foofu na nañ mooy mooy au sommet wu moom mooy sommet wu euh, MMA bi loolu noo ko gisee. xam nga xam nga Babacar MMA ñu bëri dañ ciy wax ni mais maîtriser wuñ ko xamuñu ko sax mhm. parce que ñu bëri bëri nee naa la yàgguñu si biñ si biñ ciy commencé wax mhm. euh, ñun Sénégal dama leen ñaan benn affaire actuellement MMA ñun defuñu ko ñun entre sénégalais yi ñun sénégalais ak étranger ñoo koy def nañu fexe fexe fexe ba bu ñu dugal si bopp xale yi ay concurrence ay kii raw kii jiitu kii man kii non non non non du loolu affaire bi. sénégalais yi ñooy dem di combattre ak yeneen yeneen dëkk. sénégalais bu fi jógee di dem li ëpp importance mooy na gagné. Mhm. mais ki yee jiitoog këlee man ak kii manul këlee man kii raw kii raw amul sens. parce que MMA au niveau au niveau au niveau dëgg-dëgg au sommet au sommet mooy UFC. parce que dëkk bu su nekk dafa am tey ay organisation boo demee Asie dañoo am lu mat mille organisation nga dem euh, Europe mille organisation nga dem États-Unis pareil. donc organisation yi du ñu benn tey boo demee tey fi ma war a defi combat nii KSW mhm. ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñoo gën a ngandi si Europe ñuy organiser si MMA est-ce que est-ce que ñoo gën a ngandi États-Unis du du gën a ngandi États-Unis moo tax ma ni importance bi nekkul di jéem a di jéem a oh, euh, xale yi kan moo mën ak ku raw ak ku rawul kii moo jiitu kële li muy def amul amul importance dama importance am mooy lan mm. mooy sénégalais boo xam ne jógee na fi nga dem combattre ñu ñaanal la ñun Sénégal yëpp jël affaire u mbër ak affaire u écurie yëpp teg fële ñaanal la nga am ndam bu dee Sénégal nag ku si nekk sa gox ngay défendre loolu moo ëpp importance. mais waa MMA Sénégal xam nga leen. waa xam naa leen tuuti mais jotuñu miinante trop mais xam nga xam nga MMA amagul fédération Sénégal. Ah, amagu fi donc tey fi mu nekk nii ay kii rek moo fi am ay association ay club. ay rek waaw mais amagul fédération boobu dañ ko reconnaître comme fédération MMA Sénégal amagu fi. si tànk yooyu la ñu nekk nag xam naa ni communication bi ñiy wax nañ jëm fii ñiy wax jëm fële mais xam naa ne bu ñu toogoon tey un tour d'une table mën nañu waxtaan ba déggoo. parce que tey man polonais yi nga xamante ni signé naa ak ñoom trois combats. tey waxtaan nañu man yamalewu ma ko si man kese. dama leen ni man dama am Sénégal ay combattant yoo xamante ni vraiment suma sañoon tey fii ma teg sama tànk fa lañ koy teg. ñu ne ma bëgg nañ waxtaan ak yow te à quatre vingt pour cent sax d'accord nañ ci ba nga xamante ni man maay nekk seen représentant Afrique. ba nga xam ni tey combattant bu ñu soxla man su ma nee su ma ne leen kii la ñoom ñu validé parce que am nañ ci man confiance boobu te si presse laay wax. ok man signé naa ak ñoom trois combats. polonais yi Pologne KSW tey su doon man kese la pour man rek la man naa yem samay combat mhm. te bu jeexee ñetti combat dañ koy renouveler pour deux ans tey su doon man kese kese kese pour man kese mhm. man naa faa yem def samay combat ñëw toog mais man toujours damay bëgg lu yaatu. tey am na mbëru Sénégal yoo xam ni. xam nañu joxe naa fa seen i photo joxe naa fa seen i tur pour démarrer les combats man noonu laa mel yàlla moo ma bindee pour may yaatal donc nag yàlla def na waxtaan na ak ñoom ba ñu d'accord pour ma nekk seen représentant Afrique waxuma sax Sénégal mhm. mais Afrique laa la wax ba nga xamante ni combattant bu fiy jógee man su ma nee léegi kii mu ngi au top kii jël leen ko dañ koy jël dañ koy waaw mais ci Sénégalais yi tamit boo xoolee am na ñoo xam ne comme ni waxee léegi ñi dañoo wax jëm fii ñi wax jëm fii am ñoom dañ ne intéresse maanaam bëgguñu ko sax parce que daa nar a yàq suñu sport réew muy suñu làmb gi yow ñooñu amee xalaat boobu loolu yàgg naa ko wax am na ñoo xam ne làmb day am Demba Diop kii. ngay bëre grand combat combat boo xam ne amaa yi dañuy kenn du trois mois kenn du xam looy def. nga romb leen ñuy fubal si mbedd mi nii. waaw dégluwuñu rajo. demuñu tele demuñu stade làmb intéressé wu leen. bien sûr du dëgg. Mhm. kooku làmb intéressé wu ko MMA bi tey li ma yàgg wax rek man souvent ma dégg ñu ne. non non non day yàq suñu làmb Sénégal ma ne leen non xam nga man lan lan moo tax ma gën a bëgg leen attirer leen ba ñëw MMA c'est c'est au niveau international te dañuy ànd ak sponsor yu mag te làmb ji ku ne xam ne actuellement dafa sooxee dafa manqué sponsor man sama ambition dëgg dëgg dëgg dëgg mooy tey fexe leen ba indi leen Sénégal hmm. ba nit ñu xam dëgg dëgg lan mooy culture Sénégal hmm. yàlla mën na def tey ñu ñëw ma indi leen ñu ñu ñu si làmb affaire bi intéressé leen ñu sponsorisé lamb loolu du avantage. waaw loolu avantage la moom su nekk. MMA ça n'a rien à ak bëre Sénégal yàqalu ko dara. au au contraire da ko yokkal parce que tey ñii mën nañoo am bëre door tey ñaata licence ñu am Sénégal. bari na de du ñëppay bëre. ku amul combat euh, bëre dóor mën nga dem def MMA. am fa dara am fa dara. maa ngi la toppoon ci waxtaan waxtaan nga ne ma may ma may ma parce que mat na un mois wala quinze jours sax ba yàlla dogal bërki démb daa mel ni signé léegi. ma Bombardier signé na léegi ak waa Polo trois combats signature bi kañ la am ak naka la amee. waa Babacar xam nga man euh, homme de parole la bien sûr loolu moom. dama damay bëgg lu may wax dama koy sàmm. dëgg la. Euh, bi may négocier combat yi waxtaan nañ pour pour lii tey interview ma ni la euh, jox naa la sama kàddu ah. maa ngi am lu may négocier lu rëy ah. mais loo gisit dama koy teg si yoon bëgguma tooñ tey bi ma bi ma bi ma jotee accord bi mat na un mois mais comme si signé ñu woon mu officiel mënu ma si woon na euh, avancé mënu ma si wax te ñoom ñoo am seen droit de droit d'image donc tey su ma si njëkkoon wax rek man na tooñ ma ne la yow laa si njëkk waxal defe naa ñu ngi may seetaan ñu bari woon na ma si diggante bi interview may leen noo dama am si lu ma nekk loolu yàlla dogal tey yow laa si njëkk waxal donc tey si yow laa njëkk génne sama gémmiñ ne signé naa ak KSW bi nekk Pologne trois combats yoo xam day dem ba mois de juillet incha allah mois de juillet. waaw bi yow ak kan la. mu ngi tudd Mariusz Podzonoski. Mariusz Podzonoski. waaw xam naa nag tur bi moom sénégalais yi dina dina dina jafe pour ñu prononcer ko. tur bi jafe na. waaw jëm ji jëm ji ji. waaw waaw la géant la xam nga boo gisee démb ba léegi sax ñu ngi def ay documentaire foofu. au niveau de Pologne. li may wax ni c'est à vérifier mën nga dugg seen site nga xool ko euh, ñoom dañoo defoon ni nit ñu toll comme comme amuñu amuñu amuñu loolu lañ foogoon waaw mais bi ñu découvrir tey lan mooy bëri Sénégal xool suñuy image dañ ni ñaari légende la maanaam ñoo xam dañoo ay nit ñoo xam ni kenn xamul yéen façon nit la ñu ñoo war a ñëw daje Pologne ñu def si documentaire gis naa si démb boo xam ne dem na trente minutes donc kon waa ji jëmm jë ni nga ko waxee géant la mais ñun wax dëgg ragaluñu loolu non te en même temps tamit yaakaar naa yéen a maas ci at so su ma ans. Mhm. am na ko. si parce que mu ngi ci 20 combats. Mhm. yow yaa ngi ci 2 combats xamu 3 combats. Mhm. est ce que niveau boobu tolloo na ci wàllum xam-xam ak expérience. yàgg naa ko wax euh, lu mu def si combat rek def naa ko si bëre. bëre Sénégal waaw. ok lu mu def si ay rek def naa ko si bëre Sénégal. waaw ah, moom def na 20 combats. voilà man def naa lépp 20 donc tey. Euh, bul xool niveau li mu def si MMA kese nga jël suñu bos suul da ngay xool li nga def si làmb lan nga def si palmarès su làmb ak moom li mu def te làmb MMA seen différence bariwul trop ñun dañu am base te wax naa ko foo xam ni nee naa leen gëm naa ni fii ak cinq ans MMA bi sénégalais mën nañ ko téye hmm. parce que li gën a jafe ñun moom la ñu am mooy base bi base naka la ñuy taxawee naka la ñuy xeexee te Sénégal boo dab si mbedd boo boo xeexee moom da ngay defee ni ci da doon jàng xeex. waaw ah, kay. Uh-huh. kon gëm naa ne fii ak cinq ans xalaat naa ne MMA bi Sénégal dañ ko téye. daal polonais boobu yow euh, xalaat doo ko bàyyi xel sax. non dinaa ko bàyyi xel en tant mais wax dëgg yàlla terewu ma nelaw terewu ma def dara te Babacar man dama bëgg défi dama bëgg loo xam ni. Hmm. dañ naan sawaay lii fu mu si jëm sawaay day xaru xanaa. ñetti combat MMA yi ma def yëpp. Hmm. ku si nekk maa koy fekk dëggam. waaw ah, yaa demoon Angleterre de. Rocky biir dëkkam laa ko fekk Suisse Daniel Podmore biir vilam laa ko fekk biir Angleterre euh, Podzonuski bi maa koy fekk biir vilam Pologne waaw loolu dafa am yoo xamante ni foog nga doon géré dëgg dëgg dëgg pour nga mën ko def mhm. am na ñoo xam dinañ mën a defi combat mhm. mais dañuy ragal adversaire fa lañ koy fekki dëkk waaw man bii dëkkam laa koy fekki. dëkkam nga koy fekki. waaw léegi signé ngeen xanaa MMA bi tamit côté finance moom xanaa daa mel ni am na xaalis de. waaw tane na rek tane na mais comme li ma daan wax rek mooy que conseil wu ma benn xale mu teel a gis aspect xaalis nañ ko tarbi ba pare. jàngi ko waaw tey boo indi woon tey euh, McGregor. mu ngi fayee ko ay un million et quelques dollars c'est des milliards. tey boo koy doon Sénégal gi muy dox ni nit ñi xamuñu ko. boo koy woon si làmb tey ay mbëri troisième combat nga koy jox noonu la MMA mel MMA mënuloo ñëw tey tey rek laal ay milliards mënul nekk. c'est impossible il faut nga def ay combat ba ñu xam la comme tey Sénégal nga ñëw def premier combat deuxième ba grand combat tey bu ñu nee làmbu Sénégal ay cent millions la. Hmm. ñu koy fay ko dañu leen di compter. Ah, noonu la mel si sport yëpp basket boxe bi MMA looy gën di gañee di dem sa kase di gën a yëg. waaw kon tey maanaam daal suñu la déggee kon yow sa kase fi mu nekk nii xanaa kon ci ay junni lañ ko mën a compter. waaw kase bi ma bëri woon ak combat nag Rocky. ak bi ma combat ak Pod Mor. du benn. bi ma combat ak Pod Mor ak ñetti contrat yi ma signé du ñu benn. maanaam bii moo ëpp niveau ci côté. looy gën a gagné mu gën a yëg. Mhm. waaw de tey bu ma la boo ma ko doon estimé lii boo ko calculé baanaam ñetti combat yi nga signé mat na cent millions. non da ngay da ngay junj rek. xam nga fi mu ne nii boo junjee waaw boo junjee. xam nga sénégalais ay njaay caalañ macha allah. waaw boo boo nee à peu rek. waaw ñëppay daw daanu ji. man maa à peu waaw en tout cas man li ñu ma fay si ñetti combat jaral na ma. mat na 100 millions ñetti combat. <laughs> ëpp na ko. ñetti combat yëpp na 100 ni moo tax kay sa waay xanaa yi mooy loolu léegi kon rendez bi kañ la. bon euh, waa ji. waaw combat bi le 20 mars la. sa Pologne sa Pologne incha allah. Mhm. Euh, xaw ma nag ndax man naa am naa droit wax ko publicité la wala déet. ah bien mooy tey waaw dañ ñoom bëgg dañ bëgg a découvrir Sénégal. Mhm. pour xam lan mooy Sénégal dëgg ak mbëri lan la ñuy dund donc dañ bëgg a wu seen télé seen télé bi ñëw set si ma def si man documentaire passé ak man trois jours yoo xam ne dañuy amee ànd ak ñoom Sénégal wan leen lan mooy culture bi lan lan mooy sama métier à part laay def naka la ñuy entraîner communicateur traditionnel yi maire yi homme politique yi say am di jàmm ñu toog añandoo ensemble indi leen maanaam réalité Sénégal loolu lañu ñu bëgg jour combat bi dañ koy def documentaire. teg ko teg ko avant combat bi. ok waaw ñu ngi war a ñëw le le vingt deux. muy muy lundi xaw ma mardi. def ak man trois quatre jours soog a dem. le vingt deux bii wala bii bii bii. le vingt deux février waaw. alors kay léegi ñëw. Mhm. macha allah am na solo mu mel ni kon daal MMA bi kon ni ngeen ko xam ni mu ko waxee moom ah. ku ko bëgg def itam na nga ko tarbiyu parce que loo tarbiyu pour nga loo tarbiyuwul hélas boobu pour nga nekk ci sëriñ day xaw a jafe. Thank you.